rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mushaahidiina al-kiraam dellu dellusi nañ beneen yoon di leen nuyu ci jataay bi nga xam ne dañ ciy waxtaane lu aju ci lislaam ginnaaw bi ñu nuyoo sunu mbokki techniciens yi nuyu nañ al alamul islaamiya di leen ndokkeel ci weeru koor wu tedd wu màgg wi nu génn dugg ci weeru sewaal yàlla nañu yàlla may ñu fekke ko ay déwéni déwén incha allah ñu di leen balu xaq te di leen bal xaq mu mel ni tomb bi ñu bëgg a waxtaane tey mooy alquran ak daara yi ndax xam ngeen ni ci biir koor gi bi nga xamee ni virus corona bi ñëw na fi muy épidémie bii alwaba loolu juróon na am ñu jóg wax ni dañuy protéger daara yi tax ñu dem ci ay daara di jël ay donga di leen delloo ji alxuraanul karim sunu borom rabbi su jàll moo ko wàcc ci ab yonentam Mustafa alayhi salaam boroom nag bi mu wàccee alxuraan ci yonant bi sallallahu alayhi wa xamal ko ni ko pour yow la ak saw xeet mu xamal ko ni ko umma bi muy xeet wi dañoo feddalikoo ci ñetti kuréel am na ci kuréel boo xam ni bëggul alxuraan bëggul ñooñ alxuraan yoonam nekkul ci alxuraan yoonam nekkul ci ñooñ alxuraan buñ ca yemoon rek mu baax waaye danañu xeex alxuraan xeex ñuñ alxuraan luñ man ci marginaliser ko danañu ko def mu ni kuréelub ñaareel bi dañoo diggu doomu ñoom bëgguñu bañuñu luñ ci am doy na leen waaye kuréelu ñetteel bi nag mooy ñi nga xam ni alxuraan jaral na leen seen bakkan jaral leen seenu dund jaral leen seen wérug yaram ñetti kuréel yooyu moom laa daan misaal ci aaya bi suñ borom di wax ni suma awrasna alkitaaba allasina stafayna min ibadina fa min um zalimun li nafsihi wa min um muxtasidun wa minhum saabiqun bil xayraati bi isnillahi saalik wal fadlul kabir suratu fatir suñ borom dañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suma awrasna alkitaaba allasina min ibadina ñun yàlla ñooy tànn suñuy jaam jagleel leen alquran ñu bëgg ko alxuraan gënal leen seen dund gënal leen seen alal gënal leen seen wérug yaram mu ni nag ci biir xeet wi ci biir umma bi ci biir peuple bi dañoo feddali ko ñetti kuréel benn kuréel bi fa min um zalimun li nafsi ñoom tooñ nañ seen bopp ndax bëgguñu alxuraan bëgguñu ñooñ alxuraan tayit képp ku ñu dox gis nga dox jëm ci alquran luñ mën ci sacrifier la daañu ko def ndax bu ñu sañoon alquran du exister mukk ñooñu moom fa minhum zalimun li nafsi mu ne beneen kuréel bi mooy wa minhum muxtasid kuréel lañ boo xam ni li leen soo ci alquran du dara lul dañoo bëgg rek seen doom jii di jàng alquran am xel mu neex ba bu fi jógee dugg école tubaab bi mën a réussir ndax alxuraan dàgginam xelam ba xel mi ñaw am na ñoom ñoo xam ne moom nañ ci am rek lu ñuy jullee saar yu ñuy jullee rek moo leen ci itteel buñ ko ci am baax na loolu mooy wa minhum muxtachid moo tax ngay gis koo xam ni dañ koy tuddee intellectuel mu nekk koo xam ni mboolem xeeti xam-xam yi xam-xam bu nekk dégg na ca doctorat dégg na ca doctor bu dee ci wàllu philosophe dégg na ca docteur am na ca maîtrise bu dee ci wàllu li ñuy tuddee sociologique la xuma am na ca doctorat bu dee ci wàllu ñi nga xam ne dañuy yëngutu ci wàllu médecine am na ca doctora ba mbooleem xeeti fànni xam-xam yi ñuy jàng jeex yëpp bu dee ci wàllu avocat naka noonu it mustawa bu ci gën a kawe am na ko ci waaye nag seen diplôme yooyu ci làng wële koo ci ni woon kaay taril ma alquran bu taree alquran rek ngay bëgg dugg ci rondal ga daanaka la yàlla xam doy na wees wuñ ca saar yi nga xam ni moom lañuy ñuy jullee te duñ ko sax xereñe ñooñu nag la suñu borom du ñu naan fa minhum muxtasid kuréelu ñaareel bi bu ñetteel bi ñooñu nag ñoom la yàlla tagg te mooy fa minhum zaabiqun bil xayraati mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo njëkkalante seen xelu bakkan daw jëm ci alquran alquran gënal leen seenu wéru yaram gënal leen seenu dund gënal leen seen alal gënal leen seen lépp nga xam ne lu ñu am alxuraan lañ koy jox suñu borom ne loolu nag bi isnillaahi ndax saalika wal fadlul kabir ñun yàlla ñoo leen ko jagleel muy ndax loolu yiw wu rëy la alxuraan di sa dund alxuraan jaral la sa bakkan jaral la sa wéru yaram jaral la sa alal jaral la ngay déplacé wu place par place dëkk par dëkk réew par réew mu jaral la gàddaay ngir nga mën a conserver alquran ba mën koo jox ñeneen ni nga xam ne noonu la ko jullit ñu jëkk ñu doon conserver ci jamono yonant bi sallallahu alayhi wa sallam di ko law te mooy ñi nga xam ne mooy mm, almustadafun nga xam ni dañ leen daan tër ci naaj wu tàng jër ngir ñu bàyyi al ak yonant bi dee duñ ko bàyyi ñenn ñi ñu jam leen ay xeej ngir ñu bàyyi alxuraan ak bi waaye dee duñ ko bàyyi ñooñu nag la suñu boroom wax ni ñooñu ñooy ñi daw alxuraan gënal seen lépp ñu daw jëm ci alxuraan te dootuñu ñu ko ba mukk kon dafa am ñaari kuréel al mufsiduuna fil ardi ak al muslihuuna fil ardi ñoom ñaar ñu jokkarloo kuréel bu nekk bëgg yanu moroom jaruur ci suuf al mufsiduuna fil ardi mooy ñi bañ alxuraan ak ñooñ alxuraan mooy ñi nga xam ne nii dañoo bañ dëggu yàlla gi taxaw ci kaw suuf ñooñu ñooy al mufsiduuna fil ard bëgguñu yàlla existe wala luwaay yàlla yi exister bëgguñu alxuraan exister bëgguñu luwaay alxuraan exister ñooñu ñooy al mufsiduuna fil ardi al mufsiduuna fil ard nag mooy ñan mooy beneen kuréel bi nga xam ne ñoom lañu ni li yàlla santaane lañ fas yéene di doxal ci kaw suuf moom lañu fas yéene nekke ba keroog ñu koy fekki alxuraan lañ bëgg mu sax fi ba keroog suñu borom di lalli déndam bi ñooñ ñooy al muslihoona fil ardi mooy ñi nga xam ne dañuy fosé ne doomu aadama yi seetee damay far di wax ni état ba njàngum alxuraan da la nga dégg bi day xeex alxuraan wala dafa bañ alxuraan déedéet ba ñul alxuraan état lim bañ mooy koo xam ne nii alxuraan a ko formé ni forme formé Sëñ kooku la état di bañ a teg bët koo xam ne alxuraan ko formé ni mu formé ji Maalik kooku la état di bañ a teg bët waaye bu fekkente ni waa ji alxuraan ko forme waaye nag nañuy forme Paul Marty nañu forme Molière nañu forme formé Sarsoubouz nañ formé mm, euh, Trump citoyen bu mel noonu doonte jàng na alxuraan bàqar ba minal jinnati wa naas dérangé wul état état ki ko dérangé mooy. ki nga xam ni daaraa ko defar ba mel ni sëñ Touba kooku day dérange état ki nga xam ni daaraa ko defar ba mel ni Sidi Alaaji Malik kooku day dérange day dérange état kooku la état bañ ko ko former ci pénc mi te gis na ni daara ñooñu rek lay former mooy nit koo xam ni du wax lu mu gëmul du wax lu dul dëgg du wuruj du njuuj njaaj nga xam ne nii même bu fekkente ni bu waxee dëgg dëgg gi intérêt yëpp dana ci doxe yàqu faw du tee mu wax dëgg gi citoyen bu mel noonu moom la état di bañ ko ko former ci biir daara waaye bu ñu seetee kay am na ñoo xam ne mokkal nañ alxuraan bàqara ba minal jinnati wa naas waaye seenu citoyenneté alxuraan xamu ko de ñooñu ñoo état ñooy ànd guddeeg bëccëg état sax bu soxlaa ko ko defal ñoo ñu lay woo ndax xam na ni duñ wax mukk lu juyoo liñ bëgg ndax lu tax mooy jàng nañ alxuraan wàcc ca daara ja ñu jël leen dugal leen ci école bi daal leen di jàngal doctrine Molière Victor Hugo daara nag moom doctrine sëñ Touba lay jàngale doctrine Moustapha alayhi salaam lay jàngale doctrine Seydi Alaaji Malik lay jàngale moom daara moo tax bi ñu waxee ni programme programme wala boog daara yi ñuy moderniser daara yi ñuy moderniser mën nga fa am mokkale alxuraan xëy na waaye doo fa am formation wu sañ Touba de ndax téere yi jàngale formation wu sëñ Touba kenn du ko jàngale ci l'école yooyu doo fa amee formation El Hadj de ndax téere yi jàngale euh, formation El Hadj doo ko jàng ci école yooyu. école yi daal mën nañ la faa jàngal alxuraan ak lenn ci addis jeex na léegi boo noppee looy doon mooy citoyen boo xam ne nii da ngay mel ni sarsu buus nañu ma baal moo tax na ma waxoon ni ñaari kuréel yooyu du ñu deñ di fi jóg mooy almufsiduuna fil ardi ak almuslihuuna fil ardi ñi nga xam ni defar kaw suuf takkiwin doomu aadama formé doomu aadama ba doomu aadama di doomu aadama di nit njaay xam ni yàllaa ko bind moom ko ak ñi nga xam ne ñoom buñ sañoon dangay nekk nit koo xam ne nii dañuy jël sam xel nga dese sa jëmm rek fu ñu la jaarloo nga jaar fa ñooñu mooy ñan ñi nga xam ni ñooy ndax doomu aadama yi ñaar lañ mooy suryatan tayiba suryatan tayiba mooy ñan bi maana li ñuy tuddee alwaladu alwaladu ruux lil awliya ñooñ ñooy suryatan tayiba mu amaat ñeneen mooy suryatan xabiisa ñooñ ñooy ñan mooy alwaladu li awliyaa i saytaan anbiyaahu yi mu yonant yi dañ fee bàyyi woon seen doomi ruu muy wàlli yi wàlli ñoom it dañoo am ay doomi ruux doomi ruux mooy ñan doomi ruuxi wàlli yi ñooy ñan mooy almuslimuuna fil ardi mooy fi ñi jaar fi wàlli jaaroon ngir defar doomu aadama yi bañ nekk almuminuuna billaahi xaqan almuslimuuna xaqan nekk citoyen bu wér ci yàlla mu am nag ñeneen ñoo xam ne ba tey ñooy doomi ruuxi seytaane ñoo xam ni nii ñooy sëti seytaane yi mu delluwaat ci kuréel bee ma waxoon te mooy ñooñu suñu borom di tudde zalimun li nafsi ñooñ ñooy alwaladu li awliya ay seytaan alwaladu ruux li awliya ay seytaan ni walliw amee doomi ruux noonu la seytaan amee doomi ruux walliw bi doomi ruuxam moo koy doon gannaawam di doxal mission bi mu doon doxal naka noonu seytaane noonu la amee ay doomi ruuxam yoo xam ne ñoom it ñooy doon seen bàyyi ruux yooyu di seytaane yooyu di doxal mission ba nga xam ne moom la seytaane daan doxal naka jekk moo tax suñu borom wax ci alquran ni wallaahu yaxlamu mu ne wallaahu yaxlamul mufsida min al muslii suñu borom nee na man yàlla xam naa gaa ñi nga xam ne ñooy al mufsiduuna fil ardi noonu laa xamee it ñi nga xam ne ñooy al muslihuuna fil ardi wallaahu yaxlamul mufsida min al muslih ñun yàlla xàmme nañ ñiy defar ak ñiy yàq xam ngi yàlla xam ñiy defar ak ñiy yàq mbir mi ëllëg lay leer waaye bu boobaa da naan fekk na sa desatar ndax lu muy jariñati ngay wax waaye bu ñu dellu si ci hadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxoon ni ahlul quraan ahlullaahi wa xaasatuhu famille bi yàlla bu fekkoon yàlla dana am famille ndax yàlla jurul kenn kenn juru ko waaye bu fekkoon ne yàlla dana am famille daal famille bi yàlla mooy ñooñ alquran léegi famille bi yàlla boobu nga xam ne ñooy al alquran ñoom lañu fekk ci suuf si yàlla si nga xam ne yàllaa ko moom ñu ngi leen amatu leen sañ-sañu nekk fi suñ borom lu wax ci alquran suñ borom dani yaa ibaadiya lesina amano inna ardi waasiatun fa iyaaya fahbuduni yéen sama jaam ñi nga xam ni nii nee ngeen man ngeen gëm man yàlla nee ngeen man ngeen gëm man yàlla mu ne ah mu ne sama suuf si yaatu na fu ngeen dem ñu gundoxataal leen tuxu leen dem feneen ndax sama suuf si yaatu na léegi suuf si yàlla su yaatu soosu nga xam ni sëriñ daara bi dafa toog Saalum ba yàgg mu ne man daal xam naa ni fii ma nekk ci Saalum li ma bëgg a def ci alxuraan xëy na mënuma ko fee defee kon nag naarandu ba kaw la wala naarandu ba ndakaaru wala naarandu ba nga ne ko nag amatuloo sañ-sañu jóge ci benn raison dem ci benn raison mu mel ni moom kon léegi nekkatul citoyen réew mi mu mel ni moom daal daf te moom citoyen suñu borom la te suñu boromam moom suuf si te suñ borom nee na fu ngeen yaakaar ni bu ngeen fa demee man ma faa jaamu man faa liggéeyal alxuraan na ngeen fa dem kon bu fekkee ni dangay ñëw ci daara fekk daara ji seenu toogin jekkadi te yow defar rek la tax a jóg noo war a def mooy dimbale leen ba seen toogaay jekk waaye nag am maa bu fekkee ne ko ni yow de sa toogaay bi jékkut ginnaaw jékkul nag. damay nangu xale yi delloo leen fañ jóge woon te bala ma leen delloo fañ jóge woon dama leen di jëkk a jaarale ci benn santar jàngal leen fa football suñ footballee ba noppi nag ma def ma def leen fa 14 jours léegi ma jëlee leen fa nag door leen a delloo ji seeni parent ndax xam nañ psychologiquement li muy def ci bopp xale bu ndaw bi mbooloo mu seet seet rek muñ xamul ni jàll ci seen kaw ñi yor ay kaye di bind ñii ña nga takk euh, ña nga sol tëni boo xam ne nii xaleel bi miinu ko wala lu mu ci xamoon mooy fu mu ko mas a seen daw ñu gaare ay oto coow li ni kar loolu ndax xam nañ li muy def ci bopp xaleel bi te ñoom dañu waxoon ni la fin de ri lañ bëgg a lijjanti léegi kii moom fekkatoo ko ci rii bi yaa ngi ko fekk ci biir kër nga ni ko nag dangay génn kër gi ànd ak man dem ca centre ba ma téye la fa fukki fan ak ñeent jàngal la football boo fa jógee nag ma door laa delloo say parents mooy kaay ma musal la loo xam ni boo fi jógee dootoo ko mën a ba bu fekkee ni donga bu xaw a amum xel la xam nga ab donga moom lépp lu koy teqalee kum jàng rek boo ko waxee d'accord na ab donga bu toll ci war a bënn ci alquran njàngum alquran moomu nga xam ni yor na xel mu ko mate xel mi neex na nangu naa jàng waaye temps bi muy def ci daara ji loo ko ni kaay weccee ko toog ci daara ji rek mu nangu budul xale bu yàlla dimbalee nga ni kon nañ jaar foofu lu ko gën di yàq bu fekkee état ko santaane man xaw ma ko lu ko gën di njuumte man xaw ma ko te dëgg-dëgg xaw ma ko ndax alquran yow citoyen bi nga xam ni ab jullit nga alquran da nga cee am part de responsabilité pour mu sax ci kaw suuf ñi di ko jàng ak a jàngale boroom risaala nee na ana taalima sigaari li kitaabillahi yutfihu xadaballah nee na jàngale téereb yàlla bi samp daara di jàngale téereb yàlla bi day fay merum yàlla ci kaw suuf defe naa ne virus corona bii li ko tax a ñëw yàlla yebal ko ci ñun mu nekk benn soldaar mooy ñun ñoo jaarut fañ war a jaar yàlla ñëw di ñu jubbanti ngir merenu léegi nag ñu seet li nga xam ni moom mooy fay merum yàlla ci kaw suuf ñu ni loolu nañ ko fi jëlee te mooy alquran te mooy daara yi ak sëriñ daara yi xel mënu koo nangu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom ne ko fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci asaabiquuna saabiquun ulaayka al muqarabuun fastamsik bi lesi uya ilay li ma la jox mooy dëgg muy alquran na nga ci mooy même bu ci sa bakkan dee mooy ci fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim waat naa ne yaa nekk ci dëgg moom la sëñ Tuubaa di juñu naan maasikan bil kitaabi maska darari man sëñ Tuubaa mooy naa ci alquran ni silmaxa su mooy ci yatu ki koy wammat mu jaar ci kaw benn pont tiim géej gi gis nga silmaxa soosu ak lu mën a xew buñ ko doxewoon ginnaaw di ko dóor di ko wéq di ko talaata du tax mukk mu bàyyi yat wi ndax gëm na ni saa bu bàyyi yat wi rek dinañu tëmbax ci géej gi te bakkanam mën na caa des moo tax du nangoo bàyyi yat wi mukk ak lu mën a daj suñ borom ni na ngeen mel noonu ci alquran ak lu ngeen mën a daj ci aw tiis aku naqar bu mu tax ngeen bàyyi alquran fastansik bi lesi uuya ilayka ndax innaka ala siratin mustaqim yaa ni ci dëgg te doomu aadama yi defe naa ni dëgg rek la ñuy seet yàlla ni ku mooy ci alquran yaa ni ci dëkk loolu bu la neexee nga ni waaw loolu yonent bi la ko yàlla wax ñun boolewuñu ci suñ borom ngir daggal sunu lay dagg sunu lay mu ne axakay yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa innahu la dikrun làkk wali ko waaye nag wax wa sawfa tusaluun alquran jii ma la wax ne la na nga ci mooy yow yaak saw xeet laa wax yow ak saw xeet képp koo xam ne ab jullit la rek am na masuulee ci alquran te masuulee boobu danaa ko ko laaj ëllëg yowmal xiyaamat akbar fonctionnaire bi nekk biroom am na masuulee ci alquran président la république am na masuulee ci alquran naka noonu tamit député bi am na masuulee ci alquran naka noonu sëriñ bi nga xam ne nii moom nee nañ mooy sëriñu bopp tariixa sàngam am na masuulee ci alquran kenn ku nekk sa responsabilité ci alquran ëllëg yàlla nee na danaa la ko laaj fa sawfa tusaluuna kon bul jàpp ni mukk rek sëriñ daara yi dong <laughs> ñoom ñoo am masuliya ci alxuraan jullit bu ni am nga masuliya mooy responsabilité ci alxuraan te boo ko assumé wut te mooy masuliya bi weesuwul benn nga di ko jàngale bu fekkee ni mënoo koo jàngale ngir ngànt ña koy jàngale boo amee alal ñuy gis sa alal boo amul alal na ñuy gis sa xel mu rafet boo amul xel mu rafet nañuy gis sa doole waaye ala kulli xaal na nga fexe ba saw ñaq na def ci al na dem ci alquran alkarim waaye nag bu fekkente ni da ngaa nag dee xeex alquran ah yow gisuma la mbaaw ëllëg hmm, gisuma la mbaaw ëllëg de moo tax yonent bi suñ borom ni ko moyal ci li ma la jox sëñ Tuubaa ni man moy naa ci misilmaxa ma xadi ci yatu ki koy wammat njàccaar li koy wammat ndax alxuraan mooy njàccaar li ñun ñëpp ay silmaxa lañ alxuraan yi wammat ngir yóbbu ñu ci kan ci borom bi rabbi situwa jàll suñ borom nee na walla si ni masikuuna bil kitaab wa aqamu salaata inna la nuddihu ajral ñi mooy ci alxuraan di ko jàngale guddeeg bëccëg di joxe waxtu julli ci ay waxtoom ñun yàlla seenu yool mi ngi nu garde du sànk du réer du maxe yow mal xiyaam dama leen koy fay ñu ni ndax ñooñu ñooy almuslihuuna fil ard mooy ñiy forcé ni nit ñi ngir jaaral leen ci alal kitaabu na ngir ëllëg yowmal xiyaam ñu mucc mu ni mooy gaañoo ñee almuslihuuna fil ard mu ni ñooñu moom man yàlla seenub yool wallaahi duma ko sànk mukk nga xam ni dalay lay wóor ni loo gudd gudd fan di nga mas a faatu ginnaaw loo gudd gudd fan di nga mas a faatu nag te boo faatoo doo daje kenn ku du yàlla mi la bindoon te moom la mu ne kon nag ay ca lu baax li nga doon def duma ci sànk dara safaan bay noonu la sallallahu alayhi wa sallam daa mas a toog ak saxaaba yi radiallahu taala ba yàgg mun leen waaye waay bég leen te sant yàlla ñun lu tax mu ne yàlla jox na leen téere boo xam ni daa mel ni buum gu am ñaari calka mooy ñaari cat ñun waaw mu ne lenn cat la yàllaa ci téyel boppam leneen la ci des nag mi ngi ci seeni loxo yéen jullit ñi waa basiroo fa in asal quran tarfuhu bi yadillaahi wa tarfu bi ay aydikum fa tamasaku bi yonent bi ni mooy leen ci baatu tamasak la jëfandikoo ni ngeen ci mooy genn buum gi mu ngi ci seen maanaam lenn cat la mi ngi ci seeni loxo cat li ci des ma nga ca loxol suñu borom rabbi suñu jàll mu ne kon mooy leen ci lu tax boo ci moyee yàlla moo yore buum gi moo amee kàttan gi moom mooy xëcc boo bàyyiwul buum gi rek bu yàggee nga fanaani ci néeg yàlla rabbi sito jàll mu ni kon nag fatamasu ko bi mooy leen ci alxuraan moom yi képp kenn di ab jullit loo sàggan sàggan sàggan ba alxuraan jëralu la dara bu ñuy génn ñooñ alxuraan doo ci mer doo ci xultu doo ci wax doonte mënoo ca dara waaye saa boo faatoo boo sañoon ñooñ alxuraan ay ñëw tiim la jéggalul la yàlla ñaanal la yàlla jébbal la yàlla soo amee doom ñun alxuraan ngay woy ñu tuddal la ko bindalal la ko toqantal waaye nag alxuraan jëralu la xuloo la xeex bu ñuy sonal ñooñ alxuraan wala ñu di leen gund xataal jëralu lu ko nga xam ne sax am na ñoo xam ni ñoom bu ñuy gis fu ñuy fitnaale ñooñ alxuraan lenn ci ay média dañuy sawar a ñëw ngir filmer ko ngir wan ko waa àddina waaye nag bu ñuy wanee foo xam ne dañ fay tatagale alquran wala ñuñ alquran kenn bu leen fa gis loola lu muy tekki te saa boo amee ngénte ñoom ngay woo ñu tuddal la sa doom ñoom ñooñ alquran sallallahu alayhi nee na ma min shafiin afdalu inda allahi mansila min alquran la nabii wala malaayika wala xayrihi nee na man yowmal xiyaam moom yonent bi mooy wax nee na yowmal xiyaam gisuma benn benn benn jaam bu gën a mën a ramm alxuraan du yonant du malaaka ndax alxuraan moom du mbindeef waxe sunu borom la mu ne mbindeef yi li ñuy am am daraja moo xam malaaka yi moo xam yonant yi la moo xam wàllu yi la li ñuy am am am daraja alxuraan a leen ëpp daraja fa suñu borom te yow mal xiyaam moo leen dàqar mu moom alxuraan alxuraan a leen dàqar mu yow mal xiyaam alxuraan day soppali ku jëmmi doomu aadama sol mbubbum awokaa taxaw ci kanamu suñu borom di peleedeel jaam bi nga xam ni alxuraan jaraloon na ko dara alxuraan jaraloon na la sa bëccëg sa guddi sa alal sam ngont sam xëy alxuraan taxaw défendre la ci kanamu yàlla rabbi situ jàll jalaaluhu doonte sax yàlla nattoo la ba wattu woo téere bi yàlla nattu na la sa xëy na boo dem ba jàngoo ko waaye nag bi nga xamee ni alquran mooy buum gi yàlla yor sa digg sa sa digg ak moom nga daal di taxaw nag lala la yàlla wërsëgal nga taxawoo ca ñooñ alxuraan di ko jàngale kon man gisoon naa ne li gënoon mooy bu fekkee ni defar rekk leen tax a jóg li ñu war a def mooy ànd ak ñett ba ñeent ñu mokk alquran taragal yàlla di ay mag mu wóor leen ni duñ dundaat lu toll ne liñ dundoon te deewuñu nga ñoom dem ci daara ja ñooña déglu la dongay waa daara jooja ba xam ndax ña ngay jàng alquran normal wala jànguñu ko ñoom buñ dégloo donga bi ba noppi danañ xam ndax kii mi ngi jàng alquran wala jàngut bu fekkee ni ragal nañ yàlla déglu donga ba noppi ne ah ay la yéwén di ñii de seen toogaay bi jëkkul waaye nag seen njàng mi ne baax na de ñu ngi jàng alxuraan de kon noo war a def léegi fexeel seenum toogaay jekk mooy defaral leen barab ba bañ mën faa ne buñ dégloo gone gi mu tari alxuraan ji normalul ñu ne ko ñaata at nga fi am mu ni nangami at ñu ne ah, at yu toll nii ku ko am ci daara war ngaa yegg ak loo naqari naqarim xel war ngaa mokkal nangam ak nangam ak nangam kon yéen ñiy jàngalewu leen da ngeen di yalwaan loo donga yi su ko defee ñoo ne moom man lañ leen a jël delloo leen seeni waajur waaye fekk daara joo xam ne wóor na la ni la muy mokkal la muy mokkalal ci ay donga kenn xamul nu mu toll nga xëy rek tas daara ja boobu responsabilité ku ko attan ci kanamu yàlla ëllëg wallaahi gisuma la mbaaw gisuma la mbaaw de sallallahu alayhi wa sallam nee na quraan li gën ci li sama xeet wi di jaamoo yàlla mi leen bind moom leen mooy jàng alquraan li gën ci sama xeet di jaamoo yàlla li julli di foor foor foor alquraan a ko gën a foor ndax boo doon julli te jàngu alquraan daanaka julli gi demul fen ñu ne la sax même boo doon julli te faatiha bokku ci amoog julli julli ga baaxul léegi nag xoolal alquran moomu nga ñëw nag ni dangay tëj ay buntam yonent bi ni li gën ci li ñuy jaamu suñu borom bi nu bind te moom nu mooy jàng alquranul karim tilaawatul quran alquran moomu la sëñ Tuubaa wax ni mooy yaakaaram ñu bari ci réew mi bu ñu yaakaaru sëñ Touba yaakaar El Hadj Malick bu ma ne El Hadj Malick rek yóbbaale na mboolem ku di Tiijaan rek Cheikh Madi Tiijaan yi ku ci doonul njabootu yonant bi rek di njabootu El Hadj Malick wala ngay njabootu kenn ci kilifay diine yi dëkk réew mi te ñoom ñëpp ku ci ne la nga nekk alxuraan la ko may bu dee Seydi El Hadj Malick alxuraan a tax. nit ñi bàyyi seenu sant di di wuyoo santam alxuraan a tax bu toogee ca kaw ñu toogal ko ci suuf alxuraan a tax bu yónnee ñu daw bu dee Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu alxuraan a tax bu yónnee ñu daw ndax dafa ñëw def ci alxuraan lu yéeme lu kenn mësta def waaye bu fekkonte ni sax waxalu ko boppam nga ni waaw waaye moom daa bind waxal boppam ni man sëñ Tuubaa lu ma am alxuraan lu ma am rek alxuraan la kitaabun bihi narjo minallaahi rahmatan wa nan joo bihi dunya uxra min karb man sëñ Tuubaa sama teraangay àddina ak sama teraangay àllaaxira yaakaaruma ko ci kenn ku dul téereb yàlla bii rabbi sitwa jàll kitaabun bi narjo min allaahi rahmatan wa nan joo wa nan joo bihi dunya wa uxra min al karb loolu moo ko waxal boppam te am nañ ay addile yu leer ci ni lépp lu am mu ngi ko jëlee ci alquranul karim moomu mu ni mooy yaakaaram yéen ñi ma yaakaar man alxuraan laa yaakaar yéen ñi ma topp man alxuraan laa yaakaar yéen ñi ma bëgg man alxuraan laa yaakaar alxuraan yi sama yaakaar tey mooy sama yaakaari ëllëg waaw wax ju mel noonu nga nekk ci réew moo xam ne ka ko wax citoyen la boo xam ne lam defal réew ma kenn kenn kenn mësu ko koo defal ba yàlla bindee àddina tey citoyen bu toll ni sëñ Tuubaa réew mu ko am bëriwul mu wax wax jutal nii ci alquran te yow foo toll rek ñi ne ci téere boobu yaa ngi leen di fitnaal di leen yóbbe ay naqar di tàngal seeni xol guddeeg bëccëg ba noppi dina ngaa bëgg jàmm nax nga sa bopp sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen sayidna omar de radiallahu taala anhu moom kenn la ci ñee doon recevoir alquran naa omar radiallahu taala anhu xam ngeen ko nit la woon koo xam ni ku amoon fit la di ko jàmbaare waaye xam ngeen ni bokk na ci ñi nga xam ni moom it mas naa xëy gàddu jeeseem ñu laaj ko foo jëm mu ne xanaa rey ki alxuraan di wàcc ci moom xam ngeen ni bu ko reyee alxuraan kon dootu wàcc ñu ni déet waay mu ne axakay ah fu ma fekk muhammad sallallahu alayhi wa danaa ko rey ñu ne ko alxuraan moomu ngay xeex de ba mu bëgg jaral la rey ki muy wàcc ci moom maanaam mu ne am nga sab jigéen ma nga këram mokkal na ko jàng na ko ñu ne kan mu ñu ko Fatimatu bintu Xattaab jalla anhuma jamian mu wàññi ko ñëw kër Fatima ni da koy toroxal ñu ko yow Fatima li ma dégg lu mu fekk na booba mook borom këram ñu ngi jàng sóoratu taaxa nga xam ne ñëw na ci gàttal dégg la ñu di ko jàng mu laaj ko mu ni ko du dara mu ni ko ah waxoo dëgg ñuy werante mu bitti ko loxo jaara bi mu takkoon ci loxoom dal ci jëbi jëbi teppi ko deret jooju nag tax yaramam daw mu ni ko ah naam xam naa bu ma ko gisoon sax jumbul danaa gëm Muhammad moom alayhi salaatu wasalaam ñu ko wanee suuratu taaha ma ansalna alayka alquran li tasqa ñu ko liiree xol bi lux mu daal di dem tuub ci yonent bi sallallahu alayhi moomu jaar ci jaaruwaay yooyu moom mu wax ni inna laa yarfahu bi xaasal kitaab aqwaman wa yadahu bihil axirin sayidna Omar nee na téere bii di alxuraan yàlla dana ci sukkandiku di tungoom as cam di ko tungoom di ko tungoom di ko tungoom ba law ul bu xalima ngay bind ñu dégg kiij kiij ja muy dégg kiij kiij yi xalima ak law ba malaaka yi la ko di waxtaan muy dégg waxtaan wa te alxuraan ko tungoom ba mu yegg ci daraja jooju mu ni waaye gis nga moom Omar mooy wax de mu ni waaye gis nga alxuraan yi tamit noonu lay jëlee benn waay ñu di ko nappaaje yàlla di ko toroxal di ko suufeel ñu di ko dëggaata ba yowmal xiyaam mu yóbbu ko safara ñooñu mooy ñan mooy ñii xeex alxuraan mooy ñii xeex alxuraan bu leen yaakaar ni li ngeen nëbb ci seen xol yi yàlla xamu ko yàllaa leen gën a xam seen buumi xol de yàllaa leen ko gën a jege yàlla xam na li ngeen nëbb ci seen xol yi yaquluuna bi alsinatihim maa laysa fi qulubihim li ngeen di wax ci seeni làmmiñ te nekkul ci seeni xol yàlla ni li ci xol yi man xam naa ko loolooy li garaaw mooy li ci xol bi li ngay wax ci kaw bokkut ak li suuf yow da ngay wax ci kaw ni dangaa bëgg a protéger vie wu xale bi yow loolu nga ñuy wax nee nga li tax ngay ñëw di jël xale bi di ko delloo ji mooy viwu xale bi nga bëgg a léegi nag xoolal viwu xale boobu xam nga kan moo ko naroon na protéger mooy jàngalekatu alxuraan bi ndax jàngalekatu alxuraan bu noppi woon ci xalel bi xale bi dootu fen dootu sàcc dootu trian dootu wax lu mu gëmut du sonal état aw ñaqam lay dundee. waaye gis nga bi nga ko jëlee fii nii da ngaa bëgg so sowe viam ba tax nga yóbbu ko ca centre ba ñu jàngal ko fa football nga delloo ji koy bokkam ëllëg xam nga fu muy mujj doon délinquant lakkal vite état état jàpp ko tëj ko prison di ko dundal suba ak ngoon bu peenam jeexee mu génnaat defaat wu ni wenn ñu dellooti ko delloo ci kaso ba di ko dundalaat ba ilaa kañ ba ilaa kañ boo ko bàyyee woon nag sëriñ daara bi bu sëriñ daara bi noppee ci moom rek alal jum moomut xelam du ci dem waxumaa di ko laal alal jum moomut xelam du ci dem mukk waxumaa di ko laal bu sëriñ daara bi noppee ci moom day nekk citoyen boo xam ni citoyen bi yàlla bëgg waxuma bi état bëgg de ndax bi état bëgg moom yàlla xam doy na bi yàlla bëgg bi yonent bi bëgg citoyen bu mel ni sëñ tuubaa bu mel ni El Hadji bu mel ni Ibrahima Cheikh Ibrahima Niass citoyen yooyu la alxuraan di formé. nga ni ko nag doo ko fi formé ba noppi ni yow da bëgg a sooyee viwu xalel bi déedéet déedéet da ngaa bëgg a def xale bi délinquant kon. Seexul Bàmba nee na kitaab bu rabbiyal kitaab bi nasi saalikal kitaab bu fekkee ni da ngaa bëgg a xool ab téere rek mu ne am ne alquran doo nga dib téere bi nasi saalikal alquran doo nga dib téere mu ne bihi xusimtu min al min min itaab bihi xusimtu min itaab wa jaalibaati saqami nee na téere bi moo dox sama digganteeg lépp lu ñuy bijji ak yeddeel maanaam luy tax ñu yedd ma rek téere bi dox na sama digganteek moom mooy téere bi bu noppee ci yow dootoo def lu ñu lay yeddi mukk dootoo def lu la yàlla di yedde waaye dootoo def lu la état di yedde dootoo def looy joteeg yàlla dootoo def looy joteeg état bu téere bi noppee ci yow moo tax mu ni bi xusimtu min xitaab wa jaalibaati téere bi moo dox sama digganteeg feebar saa bu ma tawatee téere bee may faj jàng ngeen yaa kitaaban bi yaa kitaaban kariman bi muy tagg alquran te xamal ko ni ko yow yaay sama tabib yaay sama docteur bi may faj bu ma feebaree anta taxibi anta xabibi eh, anta xabibi wa tabibi yaay sama soppe waaye yaay sama lool tamit Ibrahima waxoon na ko di Ibrahima nee na saa bu ma feebaree yàlla may faj bi maana alxuraan may faj sallallahu alayhi wa sallam ko jox ko ngeen gi téere téere boobu mu sant ñu ñu jàng ko te di ko jàngalante a ah, bu ñu demee nag ba nga xamante ni nag indi nañ ay muskilaat ci ñi koy jàngale te niñ ko defee moo jeng moo jërut yoon ngeen gi bi def sallallahu alayhi wa sallam nee na amul menn mbooloo muy daje fi barab di jàng téere bi yàlla bi loolu yàlla danay indi sécurité ca barab bañ koy jànge kon nag mën nañoo rafet njort lool ni alquran mii sécurité bi Sénégal amaku su néew donc nga daara yee ko fi indi ci jàng gi ñu jàng alquran soo ko waxee nag mën naa jaaxal nit ndax dana ni waaw yeneen réew yi nga xam ni ña nga fay jàng alquran bu lépp nag ay catastrophe di fa am nañ seet ñay jàng foofu alquran yan façon citoyen lañu ñan yan façon citoyen lañ ndax ki jàng alxuraan te gëmu ko nga xam ne tiit ak njàqare rek a tax mu di ko jàng bokkut ki koy jàng bu dut moom nga xam ne daf koo gëm di ko jàng di ko jaamoo yàlla fu mu toll rabbi jàll di ko jaamoo yàlla fu mu toll àgg nañ foo xam nag sëñ Tuubaa bindoon na ko nee na woon laqad qaral la inu naasa wastaxloo bi maa yajurul baasa wastaxloo bi ilmi maa laa yanfa'u fil xabri wal asri maa laa nee na sëñ Tuubaa wallahi iblis war na amatu naas bi yëpp doomu aadama yi ñu ni nu mu leen waree mu ni daf leen a xiir ñoom ñëpp ñu xëy di sàkko ji xam-xam bu amul njariñ ñu ni ko ah yow sëñ Tuubaa xam-xam bu amul njariñ mooy ban mu ni mooy xam boo xam ni bu péncum yàlla teewee xam ba mënu laa fegal sa digg safara ñu boobu xam amul njariñ mën na am njariñ fii ci àddina nag ndax di nga ci am tiraanga àddina waaye bu pencum yàlla ma teewee bépp xam-xam boo xam ne mënta dox sa digg ak safara boobu xam-xam amul njariñ mu ni sax loolu teer na mooy xam-xam boo xam ni mënta dox sa digg ak mbugalum bàmmeel bépp xam-xam ak teraanga jum la mën a indil waaye mënta dox sa digg ak sa mbugalum bàmmeel sëñ Tuubaa na booba xam-xam amul njariñ ah wax naa léegi ni yonent bi nee na alxuraan day dox diggante jaam bi ak mbugalum bàmmeel waaye yemut foofu sax day dox diggante jaam bi ak yowmal xiyaam mu nekk awaka am peleedeel ko ci kanamu yàlla mu ko dugal ko àjjana kon téere boobu nañ ko bàyyiwaat xel te bàyyi xel ci ñi ca nekk di ca kër kër yi suba ak ngoon guddeeg bëccëg jéem leen a taxaw ay citoyen lañ ñu tànn benn téere ni moom lañ gëm di ko jàng ak a jàngalante la ca gën mooy ñu taxaw leen aar leen orienté leen bu fekkente ni dañoo jàdd wala bu fekkente ni dañoo doxale ndax réew mi ñaari citoyen fi nekk benn bi lañ favoriser bàyyi bi ci des fi wa citoyen bi nga xam ne moom moyen boppam rek lay wéyee mooy moom dafa gëm ni am na masuule ci alquran te ëllëg dëgg dëgg dëgg dana ko rendre compte ci kanamu borom bi mu volontairul boppam ni moom da koy jàng ak a jàngale te kenn wérantiwul ni mi ngi koy jàng ka jàngale ndax mokkal loolu ñu bari kooka li ci gën mooy nga dem taxawu ko jàppale ko ca la mu ne waaye nag boo ko bëggee fitnaal boole ca laa xadarallah wala saman bi ci des mooy dañ leen ci xam te du tax li ngeen bëgg am yàlla da leen ciy jéppi mere leen ci jullit ñi jéppi leen ci mere leen ci du tax li ngeen bëgg am lu tax suñ borom nee na yuriduuna li yutfiu nuur allahi bi afwaayihim wallahu mutimu nuuruhu walaw kareel kaafiroon suñ borom nee na alquran mi kenn mënu ko fee jëlee loo ko bañ bañ bañ lu ci sa xol tàng tàng tàng nee na nga bëgg ko fee jëlee nee na mi ngi mel waa joo xam ni daa fekk leer guy jol joli mu bëgg koo fay ngelawal gémmiñam abadan du mas a am abadan du mas a am lu tax mooy kilo bind moom la muy yàlla nee na inaa nahnu nazalna dhikra wa inaa lahu lahaafizuun ñun yàlla noo fi wàcce téere bi noo koy sàmmal suñu bopp dara du ci mejj yàlla nag bu nee maay sàmm téere bi mooy ba ilaa yawmil qiyaam bu ngeen doon tër nit ñi di leen rendi bis par bis du tee mukk dana am ñoo xam ne danañ jàng alquran ba wattu ko ci seen dënn donte dañ leen di rey yéen jàngalekat yi nag delloo si leen seen xel dellu ci alquran suñu borom nee na inna alladina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma rasaqnaahum siran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuura ñi ma gëm man yàlla mooy ci sama téere bi di ko jàng ka jàngalante bu julli jotee ñu jóg julli ji la leen yàlla wërsëgal lépp ñu di ko dépassé ci alquran ak ñuñ alquran waaye alxuraan yàlla nee na ku ma ko jaay du lamb tijaaratan lan tabuura la wax njaay mënul lamb la mooy jàng alxuraan ak di ko jàngale kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm waxtaan wi jeexut waaye lii moo xajoon ci waxtu wi eh, di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di jéggulu yi tamit dama koy far di waxee njuumte yi defe naa waxtaan wu mel nii sax am na wu ma ci junjoon ci benn site waaye ñu ñaanaat ma ko rek ni naa ci jaaraat moo tax ñu waxtaan tuuti ci alxuraan ak daara yi di di ñaanal sëriñ daara yëpp di sàkku ci ñoom ñaan di ñaan suñu boroom mu boole ñu defal ndimbal ci alxuraan bu ko defee tamit ah ñun sëriñ daara yi ñu fexe ba seet nag li ñuy tuumaal lu ciy dëgg ñu dindi ko ñaa koy faral di wax moo di donga bi dëgg-dëgg xalel kenn du ko tamal xaalis di ko yalwaandoo ji xaalis mu yalwaan di indi ndax am na ci neexul ba neexul am na ci ñoo xam ni euh, xaleel bi day yalwaani xaalis ndax man dem naa ci benn bitik ñu wan ma ab sëriñ daara boo xam ni mm, dong yam doon yalwaan loo xaalis saa bu weer dee lu gàtt gàtt bitig ba mu koy wecci ko dana fa wecci koo sant mille quelque dem seen dëkk dellu siwaat loolu jaaduwul wër am dong bi bu mënta ñàkk bañ a yalwaan na yalwaan li muy lekk ngir mën a toog jàng alxuraan waaye di ko sas ab xaalis daal muy yalwaane te xale kenn du ko tam tamal xaalis loolu moom wax dëgg mosuma ci ànd te duma ci ànd xale daal kenn du ko yalwaan loo xaalis ndax xale warut a teel a tàmm xaalis ah rawatina nag xaalis bi mu lay jox nga di ko dajale ak it eh, ñu jox la daara ji eh, nga bàyyi fi daara ji au nga dëkk ak donga yi nga dem dëkki mbadaxun bàyyi donga yi ñu dëkk fële te sëñ Tuubaa kat radiyallaahu daa waxoon ni defar taqoo moo tax ba mu waxee ca daam ga lu mu wax baa nit du yóori maal ko yóori baaxi suróori lil ju la saa mooy ña fa nangoo toog daara ji da nga fay toog daara ji danga fay toog taqoog dongo yi xam fa ñuy dugg ak fa ñuy génn waaye bu tayee yaa nga yor sab kaamil fu ni nga dugg fa wàcce kaamil ñu jox la aw ñaari junni wala juróom ñaari téeméer euh, ngay wëndeelu fenn fu nekk daanaka donga yi du ñu jàng di leen yalwaan loo xaalis loolu Moustapha mosu cee ànd te duma ci ànd ba abadan ndax jaaduwut rafetul warta am waaye ñoom it nag lee ñuy def bëgg a la daara yëpp ni daara yëpp yamit loolu jaaduwut kon nag ñu ngi wax suñu borom ni ko allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l xasana